gis ne rek jéem a jàppale suñu président Macky Sall. d'accord ñuy préparé mosu bu rëy grand prix chef de l' état. non da nga ko def nii rek pour affaire mawlid bi lu ma laaj mu tontu la. loolu yaa ngi ci jàmm. a baax. alhamdulilah loolu Sénégal yëpp jeunesse su Sénégal yëpp. ak ah, ah, ah, lu dóoru yëpp. man loo taranga man naa ko wax ñun ñëpp ñu ci jëriñ ginnaaw le président Macky Sall. le président tous les Sénégalais. ñun ñëpp ñu ci jëriñ ginnaaw le président Macky le président tous les Sénégalais. maa man maa ko wax ñoom ñoo ma fal ñoom ñoo ma fal li ni ñoom ñoo ma ko wax man loo taranga man rek. man rek maa bëgg Macky Sall ñoom ñii ñoom ñoo ci raw ñun nag ay xale yu ndaw lañu ku ñu woo ñu fekk ko ko. mooy moom moom mooy ci teraanga ñu bay jàlloo. ma ne dama ne dama ne ñun ko loolu loolu pare ñun loolu dépassé nañ ko su ñun su suñu carte ñun lambatuwuñu. Ah. Sénégal Sénégal Sénégal ay xale dong la ñun. ñun ñoo ko bëgg ñun ñoo ko fi ñun Macky ñun ñoo ko fi ñun ñoo ko jox gratuitement moom moo gratuitement di na nag sunu doomu ndaje Abdou Aziz sunu grand nga xam ni kum ñu woo rek ñu fekk ko moom moo ñu doyloo ñu doyloo ko. incha allah campagne yi xam ne jàppale ma ne dama ne dama ne incha allahu rabi. kon élection 2019. fii escorteurs yi dañuy dañuy campagne. te dama ne useurs yi sax dañuy naaw ci kaw jaww ji. ñun ñun ma ne ñun waa Dóoru Sénégal ñun Macky Sall moo ñu ñor ñun. moo ñu defal permis gratuit loolu loolu musu musu fee am ñun ñoo ko bëggal bo suñu bopp ñun duñu waxantu waaw ñun ci ginnaaw ilaa yow mi di ñun am waaw yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ça va nan lay demee nii waa lii benn team la bu tudd Horizon Rider team buy yëngu si affaire u moto mhm. sport sport mécanique lay def mais chaque année bu ñuy gàmmu ji wala màggal dañuy jënd essence fii jox ñëpp nduróole ay t-shirt ñu def convoi dem loolu moo ko tax a jóg quoi. d'accord mais ren dama ñëw ñu ne président de la république son euh, ngi ñu liggéey ak moom daal. dina ngi liggéey ak moom. ñu kon mën nañu wax ne daal 2019 yëpp ñu ci ginnaaw son excellence. waaw si loolu lañ nekk nii de. Ah. loolu lañ bëgg a def. yu dañuy waajal lépp dem Thiawane loolu lañ demee. nii wala. non essence bi nii kër groupe bi ñoo ko jënd quoi. kan moo ko jënd. chef de l'état. chef de ñu may la. nan ngay def. ñu may la. non da ngay bokk si groupe bi da ngay na ñëw inscrire ñu boole la ci groupe da ngay dégg rek programme bu ñu tëral rek ñu boole la ci. presque ñi nekk ñi ñëpp ay mécanicien lañ. majeure partie bi ay dañoo am amul moto. waaw ginnaaw président Macky. waaw bu baax à 100 pour cent. ah ñu si ginnaaw Macky à 100 pour cent. dinañ ci ginnaaw. waaw bu baax. yaa ngi ci jàmm. yow looy def fii tey station bi. ah ñoo sotti essence bi. da nga ko jënd wala dañ la ko may. dañ la ko may. ku la ko may. sama patron bi la ko may. xam mooy sa patron. Aziz Badiane. Aziz Badiane. waaw Aziz Badiane ku ko may essence eh, bi. Macky Sall. Macky Sall. waaw kon yéen a ngi ci ginnaaw Macky. léegi combat bi fan la jëm nii. combat bi nii ah yow tamit sa leneen rek ba pare bu fekk lu ko la xam boo dee doole. ah waaw yàgg na gaaw la jëm wala Thiès. non man Thiès laa jëm man Thiès laa gàmm. Thiès ngay gàmm.